bëgg bëgg mit ma ba ñëw fii. ah daw. yaa ngi neexee loolu ba. ko sama oh! waaye nag danga nga bëgg ku jar a bëgg. Ousmane rek bëgg. da bëgg ku jar a bëgg. pour ñu wax ci télé bëgg ma sax ku yëngu. ndeysaan. Ousmane rek laa bëgg. bëgg bëgg dafa métti waaye xaar ko Mbacke incha allah dina lay tourné léegi ñëw Mbacke incha allah jërëjëf jërëjëf